ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di ñaan sunu kàddu fekk ñëpp ci jàmm tey jii ñu ñëwoon fii Guédé ci kër candidat Mouhamadou Moustapha Cissé man mii ci kàddu gi Moustapha Messere lañ may wax mooy chargé de communication di ànd ak Mouhamadou Moustapha Cissé kii ci sama wet di Abdou Lahad Guèye nga xam ne moo yore bi tey jii ñu déggoon def benn évaluation ci li nga xam ne moom lañ romb ci période de campagne yi ak bi ñu accès ci campagne yi. loolu waral tey ji ñu jàkkaarloog journaliste yi Mamadou Moustapha Cissé après bi ñu publier liste yi le 2 juin mi ngi ñëw Sénégal euh, ci la quatre juin bi mu ñëwee nag première activité yi mu njëkk a def mooy fii mu nekk di Guédé dafa dem ci Serigne Omar Bousso mi nga xam ne mooy xalif Guédé siyaare ji ko waaye siyaare ji ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ te nekk ci biir Guédé muy imam beeg ñëpp bi mu ci jógee dem na ci kilifa diine yi nga xam ne ay wóllëreem lañ. dem def ay ziar visite proximité yoo xam ne wax leen li mu engagé ak li nga xam ne ci la dugg ginnaaw bi dem na ci daara yi nga xam ne mooy daara Serigne Saliou ci kuréel yu fasante ko yoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk ñuy dongo murit yoo xam ne ñoo nekkoon ak moom ci te tey ji wàcc nañ kenn ku ci nekk mu dem waxtaan ak ñoom ñoom it ñu engagé ngir jàppale ko ci li nga xam ne moom la nekk bi mu ñëwee nag li nga xam ne moom la njëkk a def mooy dafa former famille mooy jubali ndaw ñi surtout yu góor yi ak yu jigéen yi pour jéem a investir ci ñoom jéem leen defal ay formation encadré leen looloo waral boo gisee ci cortège bi muy àndal ñi ci ëpp ci nit ñi mu àndal ñëpp ay jeunes lañ ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor waaye fàttewutu ñi nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñoom la dëkkal ci Guédé li nga xam ne moom la njëkk def la 5 ba la 9 209 audience yoo xamante ne am nañ ko fii ci biir kër gi audience yoo xamante audience politique la avec ay femmes ak ay leaders ak ay ASC ak ay daayra ay bàjjenu gox ak ay mouvement politique daje nañu moom fii ci biir kër gi kenn ku ci nekk it mu waxtaan ak yow ban engagement la am ci li nga xam ne mooy projet bi mu jëm ak collectif bi nga xam ne président de la république am na ko ci moom ba investir ko fii ci biir Guédé pour mu nekk député assemblée nationale yal na ko yàlla defal bi mu jugee ci loolu it jàppale na jigéen ñu toll ci cinquante 156 femmes ci ay financement ci ay mbootaay ci ay quartiers yu fasanti ko waaye lim njëkk a def nag mooy quartier bi mu dëkk muy Guédé Guédé Tindodi ak Pulaye ak Daaru Marnaan ak Saam ak Kër marché Ocass ñu taxaw ci marché Ocass parce que souvent politiciens yu bari ci biir APR mosuñu nangoo teg seen tànk ci biir marché Ocass moom lim njëkk def mooy dem ci réseau bi base bi nga xamante ne mooy li gën a mag association bu ba fa gën a mag mu wax leen lan mooy seeni doléance ñoom ñu wax ko ko li ëpp ci liñ ko waxoon mooy ay machine mooy fer yi ñu liggéey ak machine ordinateur yoo xam dana mën a yombal seenub liggéey waaye moom ci relation mu fexewut partenaire boo xam ne lijjanti na leen ay ci nombre bi ñu soxla woon ñoom wax koon ko moom ak enveloppe boo xam ne danañ mën a accompagne ak machine yi nga xam ne soxla woon nañ ko mbaru yi nga xam ne ay fer ak yoon tey jii danañ ci jot incha allah parce que jot na ci machine yi gën ngaa yàgg buñ ci jotu tey suba bu ñëwee Touba incha allah danañ ci jot waaye financement yooyu nga xam ne def na ko ci mbootaay bi li nga xamante ne bi diggante bi ñu commencé ci période de campagne 14 millions 356 mille 700 francs financé nañ ko ci période de campagne nga xam ne bi ñu jugee ñun ci période de campagne bi mu ñibbisee ak bi ñu egsee nga xam ne mooy bisu campagne yi ci candidat boo xam ne candidat investi la parce que ali yëpp mooy seen candidat moom li nga xam ne moom la ko coalition benn bokk yaakaar jox ci xaalis 3 millions 800 mille la comme nit ku ñu considéré comme son li ñu jox son yi 3 millions 800 yi nga xam ne moom lañ jox son yi moom lañ ko jox fekk na moom li mu financé diggante bi mu ñëwee ba bi ñu koy jox xaalis bi rek 3 mille 14 millions 356 mille francs le 10 ba le 16 candidat Mamadou Moustapha Cissé jël na ci 9 millions 5 9 millions 657 mille. ci ay visite proximité VAD ak manifestation ak CR chef de lycée yoo xam ne def na ko ci biir dëkk bi ñun ñoo ci àndoon ak moom ay visites yoo xam ne da ko doon def ci yenn mbootaay ci bàjjenu gox yi ci association yi ak yooyu ak yeneen yoo xam ne da ko doon def ci ay chef de lycée yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi te mëntoon a ñàkk dem ci ñoom. lu toll ci 4 millions 800 mille francs def na ko ci formation des defal nañ leen formation yi ci gox yi nga xam ne lim naa ko yoo xam ne pare nañ ba ñu war leen def ay remise kenn ku ci nekk formation bi ñu waroon a def ak yow def ko. waaye nag ci ak njàmbaaram mu wuti li nga xam ne mooy partenaire pour jàppale base politique am 250 femmes yoo xam ne signé na accord ak crédit mutuel ci ay financement rapide yoo xam ne xaalis bi mu ngi en cours commencé nañ sax waxtaan yu def nañ ci ay waxtaan yu bëree bëri ak base bi ak ñi nga xam ñooy responsable yi ci prix loo xamante ne daanaka jege na financement boo xam mën na 500 millions yoo xam ñoom la koy dimbalee ba nga xam ne seeni dossiers yu ci bëree am na it benn association boo xamante ni bii waroon ñoo ngi doon def ay tournois tournoi tey jii final bi moo ci des loolu it ci suñu projet lay doon bi di demit li ci li ñu ciblé woon mooy sancaan yi sancaan yi bu ñu demee seen i li ci ëpp mooy ndox fii may waxee bi may wuyu téléphone maa ngi coordonné ak seetaan ndox yoo xam ne deux seetaan yoo xam ne war nañu am tey jii ci bis bi quatre voyages yoo xam ne dañuy dem ci Tindo di ca sancaan ya danañ dem Daaru Xaddim ca sancaan yi fii may wax yo xam ne nag bi mu koy def coalition bi nga xam ne moom la bokk tañ investir ko 3 millions 800 mille francs lañ ko jox te moom li nga xam ne financé na ko tam déplacé ko période de campagne bi parce que jege na 30 millions kon nag fii lañ commencé te it fii lañ yemagun lépp loo xam ne mën nañ ko def it ba list bi jàll nga xam ne duñ ci wane ak yaafus fas nañ ci yéene def ba nga xam ne muy tedd liste bi kuñ mën a investir it jàpp naan doo ci wane njàmbaar gu toll ne moom lañ ci moom moom lañ am souvent mais ak ki bi ñuy dem réseau ba bi ñu dalal baselom bi mu am dëgg-dëgg ci membre yi ci biir réseau bi la ñu nekk leader bi ñu yuuxoo ci foofu lañ ko yuuxoo mais ñun dem nañ fa te yuuxoowuñ parce que njariñ lañ leen amal ñoom looloo tax te suba incha allah bu financé woon tey suba bu ñu leen di joxaat machines yi dañu woowaat presse bi ñëpp teg bët kon c'est-à-dire que ñun demuñu foo xam dañuy wax parce que njariñ lañ dañoo dem laaj leen luñ bëgg ki nga ne loo bëgg mën la lii laa bëgg nga dem wuti la mu bëgg andil ko ko kooku dana am beneen kóllëre bu dox seen diggante bu bokkut ak di leen yuuxoo kon cest à ñun war nañoo demaat réseau ba te bu ñu fay demee njariñ lañ laajoon ñoom moom lañ di yóbbu moom lañ leen di boo gisee ñun li ñuy gis ci ci ci dëkk bi te ku xam benn bokk yaakaar fi mu tolloon ci élection passée rek élection local ak tendance bi fi mu nekkoon mer mi fi mu nekkoon benn ci mën mi rek nga xam ne ñu bari dañoo waroon liste bi gannaaw ci investiture yi baaxut waxtaan wi waroon am ci parti politique yi amut benn bokk yaakaar sax am ay clan yu génnoon ay reconnaissance ak jigéen ñi maire ak góor ñi léegi bu ñu demee ba bloc boobu dellu siwaat nga yokkaat électoral bi aussi parce que boo amee yeneen leader yoo xam ne xëy na mën nañ ko bañ a tuddagun fii parce que dañ def seen déclaration jiite woon ay coalition demoon ci élection locale ñooñu ñëpp ñëw renforcer la mën ngaa créé beneen appareil politique fi mu toll ci wàllu social ak lépp ak mbooloo mi ko topp démb mu doon def jàpp gu mu war a jàpp ci liste bi jaare ko ci papaam muy Cheikh Bara Gueye démb gis nga coalition bépp fa daje woon. ñu mel noonu nag comme dañ laa wanoon ginnaaw te jëm nga élection yoo xam ñëpp dañoo engagé pour jàppale la yaakaar mën naa gën a dollee ko ne liñ bëggoon lépp dana mën a am. xam nga loolu li koy li koy li koy indi mooy Mouhamed bi mu dalee politique ba nëgën yi mooy bi mu nekkee ci bi mu nekkee ci parti ba fii may waxe ak yow nekkul na parti bi mas na ko servir benn dërëm bi mu ñëwee ba nëgën ci ay moyens boppam lay demee. 2019 a gënoon a metti ñu jógee ci problème bàkk ak màkk mu ñëw ci xaalis bu bari ci côté sam ñoo daan ànd élection locale yi rek. bi mu wanee ginnaaw liste bi gis nga doole jëm am ba kam àndaloon ak électoral bi mu ko a indil cest moom moo am gëm-gëmu ne man ci politique bu may dem damay dem am sama propre moyen bopp. élection locale mi ngi doon jàppale docteur Abdoulaye Niang bi mu ñëwee ci moom. yëkkati un million ci sama kanam dana ko du ma la jàppale ngir di soxla ci yow benn dërëm financement am la doon dem ak xaalisu boppam renforcer ji baasam dem campagne bi ñëwee ci coalition benn bokk yaakaar it li ñu waroon a def mooy teg comité électoral. comité électoral ñu ne lii moo fi dugg ci comme ay moyens ñu diisoo ci suñu biir waxtaan comité bi dem liggéey mais ñoom dañ ko def comme ay zone ñu nag bokkuñu ci zone. donte ay alliés lañ dañ ñoo waroon a génneel somme boo xam ne duñ ñu considéré comme somme mais buñ ñu considéré comme somme 3 millions 800 yooyu sant nañ leen ci parce cër boo xam ne ñoom yëkkati nañ ko jox ñu ko mais bu ñu ko joxee ñu dem mais nag ki war a gañal da ko war a jox doole parce boo yebalee nii da ko demal xeexal ma da koy préparé waajal ko def ko lépp